Euh, tey dañoo ñëwoon tey pour def benn point de presse leeral suñu diggante ak li fi li jàll ni ci ginnaaw tuuti mooy ginnaaw boo xam ne def nañ benn conférence de presse ci euh, mairie bu Mbacké yëg nañ ne ci jamono jooju président de la république dem na proxaan am jafe-jafe ci suñ diggante ak euh, filière arachidière bi bi mu defee looloot yàlla dogal ñun ñu def benn conférence presse xamal ko ne ko de ñun am nañ ci solution ci loolu ci lañu ñu ñu daje ànd ak sunu benn membre boo xam ne ab actionnaire la woon ci Rasiat SA muy soxna maam Xëri Mbàkke bi ñu demee ñu daje ak premier ministre daje fa ak ministère de l' agriculture ak ministère des ak Pape Dieng directeur de la Sonacos ak mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk booba filière arachidière bi ñu toog discuter ñu laaj ñu suñuy xalaat laaj ñoot ban ban ban taxawaay lañ ci mën a am suñu diggante ñoom ñun ñu garanti leen xam ne leen bu fekkee ne ñun may nañ ñu jàppale nañ ñu ñun ñu bëgg li ngeen bëgg maanaam dana jeex mooy problème mu filière arachidière bi dana jeex ci Sénégal yàlla dogal loolu bi ñu ko taxawaleet ci la 13 mars ñu dem ministère de de la ministère de ministère de commerce daje ak ñoom taxawal benn protocole boo xam ne moom la ñu tuddee protocole 13 mars rasiat ñu jiital ko ca ngir ñu am solution ci campagne arachidière bii jàll mooy 2017 2018 loolu la ko waral mooy président dafa wax ci sortie bi mu defoon Porokhane ne bëgg na gerte ak Sénégal gi ñuy waa Sénégal gépp di consommer huile parce que xam nañu huile d'arachide mooy huile bi gën ci huile te it gerte ñun mooy suñu matière première kon war ñu ko bala ñu koo jëggaani beneen huile nañ nañ jël huile bi nga xam ne moom la jëfandikoo moom la ñuy bay ñu di ko jëfandikoo bien que moo gën a jafe waaye nag suñ ko suñ ko bayee jox ko opérateur yi nga xam ne ñooy raffinerie yi ñu raffiné ko euh, dana am solo loolu moo indiloon protocole 13 mars boobu boobaat mboolem huiliers yi nekk senegal yëpp euh, participé woon nañ ci ndaje yooyu muy Sonacos muy FKS muy à huile ak CIT euh, ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoo aju ci filière maanaam ñi ci liggéey ci raffinage yëpp ak ñiy conditionné yëpp bokk daj nañ ko muy membre sidine 28 membre yoo xam ne ñi ngi ñi ngi nekk ci biir euh, protocole boobu gannaaw looloot yàlla dogal na ñu taxawaat ak président de la république parce que wax nañ ne filière bi sori na faaw ñun ay néew di doole lañ amuñu doole ay artisanat lañ amuñu doole mën a génnee gerte maanaam mën a jënd gerte ca fu mel ne Ziguinchor wala Kolda indi ko Sénégal amuñu moyen yooyu pour liggéey ak ñële bi loolu amee président taxawal ak ñun wax ne danañu ci jàppale ba nga xam ne loolu dana jàppandi loolu le 8 août le 8 ñu daje ak président de la république mu confirmer ñu ñu confirmer ko xamal ko ne ko kat euh, li ñu waxante ak yow ñun mën nañ ko assurer au sama euh, moment lii yoon yi nga xam ne moom lañuy jaar yëpp. bi ñu demee ba 8 juin durant boobu ñu ngi continuer suñu négociation di doxal euh, protocole boobu ñu di ko doxal ba àgg ci 8 juin bi ñu àgg ci 8 juin Sonacos ci boppam. gis ne gerte gi wàññeeku na ci àll bi mais nag am na benn jafe-jafe mooy gerte ak daawam gi ak gerte ak renam gi amagut ay machines yoo xam ne mën nañ koo triturer mën nañ koo xolli am na amul machine yoo xam ne mën nañ koo euh, euh, segal ci loolu ci la ñëw proposé ñu benn prestation entre huile mooy artisanat yi mu ñun ñu jox ko huile bi ñu ñu ñu segal ko jox Sonacos mu raffiné jaay ci biir yow mi ak feneen foo xam ne bëgg na faa jaay képp ko amul contrat bi yàlla dogalee looloot Euh, soxna maam Xari Mbàkke mi nga xam ne moo fi nekkoon ci ñun ndax ñun dañoo aadawoo ci fii ñu nekk ci environnement bii ñu wër saa yu njabootu sëriñ bi ñëwee suñuy daraja ñu sippi ko jiital ko tekk ci suñ kanam yàlla dogal bi mu ñëwee donte ni membre la woon ab actionnaire la woon ci ñun directeur général bi suñ Baara ma nga fa woon PCA bi mi ngi fi amul woon benn place pour pour jiite loolu waaye ñun ñu jël ko suñu dara jaale ko loola jox ko cër boobu ngir mu mboole li ñuy dox lépp bu ñu àggee moom la ñuy présenté jox ko jox ko kilifteef ñu tàmbali bi ñu ñëwee ak Sonacos it moom ci jëmmi boppam mu proposé ne Sonacos dafa ñu proposé pour ne moom mooy jiite protocole mooy jiite maanaam mooy signé signé mooy signé contrat bi. bi mu d' accord ci ne nooy wax ne moom la ko Sonacos wax ñu nit bu toll noonu ak njëriñ lu am looloo xam ne 12000 employés am nañ ko suñ ginnaaw mu nekk ci ginnaaw nit ñoo xam ne xëy na mën nañ cee liggéey ci biir nawet bi. plus de 12000 emplois yoo xam ne ñi ngi waroon a dem ci àll bi bayi te mën nañ cee gis seen bopp ñeneen bayali leen ñu mën ko téye seen bopp loolu duñ ko xañ duñ ko xañ mboolem suñu employé yi ci lañ ko defal délégation de pouvoir ci le 8 8 juin boo xam ne sëñ baar Mbacke mi moo ko defal entre Sonacos et Gracia ñu liggéey looloot mu ngi nekkoon contrat boo xam ne Ousmane wax ne leen ko léegi 30 mille tonnes la woon euh, ñu tàmbali ci le 23 juillet ci la gerte gi tàmbali di ñëw fekk bi mu avant loolu njëkk nañu def benn test test bi ñu ko def ci ñaari filières yi arachides mooy nouvelle campagne bi ak ancienne bi. nouvelle campagne bi mooy gerte entier goo xam ne entier graine entier boo xam ne gerte gu mat la gu set bi ñu defee test booba ñu indi euh, gerte gi ni mu toll ak euh, diw gi li mu war a mën a génne ci diw ak li mu war a génne ci tourteau mooy ràkkal yàlla dogal bi ñu tàmbalee nag ñu tàmbali dox tuuti xam ngeen ne euh, ñoom seen jëmmi bopp danañ am yeneen filière maanaam xeeti gerte yeneen yoo xam ne danañ ko am mooy am nañ ñeenti façon gerte tam indi nañ ko ci diiran boobu parce que ñaari gerte yooyu ñun moom lañ jotoon test waaye ñeenti gerte indi nañ ko fi indi nañ fi benn ancien campagne indi nañ fi nouvelle cantine mooy nouvelle graine boo xam ne graine entière la indi nañ fi li ñuy wax graine huilerie yi mooy écart huilerie yi ak écart écart euh, euh, demi graine décortiquée loolu ay xeeti gerte la yoo xam ne benn bukk ci ak morom ci te benn mënu ci tolloog morom ji ci ci lum ñuy génneel yàlla dogal nag bi loolu amee euh, fekk dox nañ ab diir ñu xam ne lii comme que gerte yi buñ ko xoolee bari na ci ñoo xam ne yenn filière gerte dañ ci am jafe-jafe ci la mboolem ensemble bu RACIAT toog daje waxtaan bind benn lettre boo xam ne si jafe-jafe ñu ci am entre Sonacos te lañ signé woon ca contrat ba wóote na ak lii ñu ci teewaayu maam xëri moom xam ne moom lañ doxaloon suñu diggante ak moom directeur général teew mboolem chef de groupement yëpp ñëw toog ñu bind loola wax maam xëri ne ko kat lii dañoo bëgg ñu jox ko Pape Pape Dieng directeur général bu Sonacos ngir RACIAT toog ak Sonacos xew-xew yi wuute yi am ci biir gerte gi ñu toog ñu waxtaan ci looloon ñu wax ko ne ko dañoo bëgg balaa la vingt cinq ñu ngi ko def ci début di début di août bi début di bi ñu ko balaa la 25 août dañoo bëgg ñun ñu dajee toog bu leen 5 août jotee nag mooy toog nañ danañ ko ne bu bu jotee dañuy bëgg ñun ñu toog maanaam nag bu fekkee ne na te waxtaan dañuy bëgg ñu taxaw taxaw maanaam ñu taxaw déglu leen ba ba ñu am négociation ñu doon continuer waat doxaat non non ñu suspendre tax suspendre la ñuy liggéey maanaam gerte gee kii bi ba ba ñuy toog ñu waxtaan. waaw maanaam. suspendre maa xamu nuñ ko mooy toogandi li ñuy wax toogandi ajandi ko ba ba ñuy waxtaan ba amuk déggoo parce que li ñu wax nii lépp oralement teewul nag li jiitu looloot ñi ngi doon wax waaye li ñu wax it dañoo wax ne ginnaaw mbind ñoom contrat bi ci këyit lañ ko bind dañoo bëgg lii bu ñu demee ñu toog ñu bind ko ñu këyit ñu ñu ñu continuer loolu loolu bi ñu ko waxee eh, ki nga xam ne moom lañ jiite loolu moom la ñu wax nga xam ne ñoo yore liggéey bét signé ko mu dem yóbbu ko bi loolu amee na bi ñu àgg ci la 25 it euh, foofu yëg nañ fi ay xew-xew yu bari yoo xam ne am na fi xëy du jar ñu di fi dikk mooy yëg nañ ne euh, yu bari yoo xam ne jaaraan na fi ci ginnaaw bi mooy benn compte boo xam ne ubbi nañ ko ci le 29 juin. compte bi ko waral mooy Rasiat SA dafa am benn structure mooy directeur général bi mu ngi PCA bi mi ngi fi mooy président conseil administration bi. mu amee euh, directeur général ci boppam compte boobu le 29 août le 29 juin. moom la contrat moom la ñu ubbi compte bi bala 15 bala 20 août ñun la ñuy door yëg ne compte boobu ubbi nañ biñ ko yëgee lañ daal di bloqué compte boobu continué waat liggéey continué liggéey ak ak ñoom. bi loolu amee Sonacos ni ñu doon négocier ak moom waxtaan ak moom it lañ continué ñu suñu négociation bëgg defe nañu balaa la 25 wala plutôt la cinq daje la la 22 lañ tabaski la 25 ñun danañ danañ daje pour ñu am solution ci gerte gi. bi ñëwee ba la cinq amuñu solution. le 27 ñu jox ñu benn kayit nañu dañuy def mise en zéro mooy dajale leen li fi nekk ci gerte ak ràkkal ngeen jox ñu ko ñu fay leen li ci nekk ñun xamuñoon booba lan moo waral loolu mais nag comme que dañoo euh, société lañ signanteel ñuy liggéey faaw ñu xaar leen euh, maanaam ñu déglu leen ba nopp biñu defee demee ba ci biir mise en zéro bi xam ne daanaka jeexal nañ ci la ñuy yëg ne Sonacos ñun kat am na beneen euh, rasiyaat mooy GIE benn GIE parce que ñun SA maanaam société anonyme la ñu yor am na benn GIE boo xam ne nee na mi ngi liggéey mi ngi distribuer gerte gi ci e, maanaam e, xëy na kenn nit moo ko yor ci suñ biir ndax six six six groupement yi nga xam ne ñoo composé huit groupement lañ di quatre-vingt-neuf membres sept groupement yëpp yi ko composé ñoom bokkuñu ci ñooy loola loola bi ñu ko yëgee moo tax ñu taxaw woote point de presse bi bëgg a wax nag maanaam e, yéegal autorité yëpp xamale ne leen njariñ li nga xam ne gerte gi amoon na ko njariñ li nga xam ne opérateur maanaam ñi doon def artisanat amal na ko Sénégal du loo xam ne kenn nit doo nga na ko parce que kenn nit wala ñaari nit wala ñetti nit 20 tonnes wala 40 tonnes mënuñu ko liggéey par jour te ñi ñi ngi amoon 2500 litres 2 millions 500 litres danañ ko liggéey ci ci ci ci mois boobu liggéey nañ ko fi njëriñ lu toll noonu nag ak 20000 am maanaam 20000 emplois yoo xam ne euh, durant nawet bi bàyyi woon nañ seen i kër ñëw di liggéey ak ñun nga xañ leenub liggéey ci diggante boobu jox ko ñaari nit wala ñett nit te xam ne su mbooloo moomu du topp ci kenn nit loolu bi ñu ko xamee li nga xam ne joxoon nañ ko soxna si mooy délégation de pouvoir bi ak jafe-jafe yi ci am ñun ñu recruter waat dindi waat délégation de pouvoir boobu xamal ko ne ko nag Sonacos comme que mbooloo mi lay liggéeyal nañ nañ signé ak président conseil maanaam nañ signé ak directeur général bi ñu continuer suñu liggéey ñu continuer dox doxal li ñuy doxal loolu bi loolu ameet moo tax ñu interpellé état di interpellé mboolem kilifa yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu te xam ne njëriñ la loo xam ne 4 millions sénégalais ñoo nekk ci suñu ginnaaw 4 millions sénégalais ñooy bay gerte gi ñooy transport ñooy def transport bi ñooy xolli gerte gi ñoo ñëw Touba même Touba di di di di def huilier di ko yóbbu ci seen bi boolewuñ ci unité yi nga xam ne ñooy def réfinance yi njëriñ loolu na rëy goo xam ne jàpp président de la république ko bàyyi mu continuer maanaam mu mu niil noonu ñu continuer loolu parce que loolu intérêt la boo xam ne intérêt général du waa Touba dong waaye Sénégal gépp mënoon nañu cee gis seen bopp te li may wax nii temps maa ngi ak chiffres yoo ne ñun benn horaire lañ doon doxal ci ndax biir nawet lañ nekkoon te emploi yi liñ ci ñu ci bari demoon nañ ci nawet yi mais bu ñu àggoon fi actuellement ni ci campagne nouvelle campagne bii ñu jëm nii xam ne ñu toog kenn ku ci ne mën a jël ñetti horaire wala ñaari horaire minimum 5000 tonnes 5000 5 millions de 5 millions litres d'huile danañ ko mën a par mois wala lu ëpp loolu. loolu nag njariñ la te jàpp nañ ne boo boobaa seen waa yi nga xam ne ñi ngi jógee ci àll ba duñ jënd gerte dootuñu am temps buñ jënd di dootuñu am temps pour jënd leen te loolu njariñ la leen ñun suñ jëmi bopp ak maam xëri bi ñaare bi mooy biñ ko koy dara jaale ñun ñëpp ñu maase toog euh, benn ñu jox ko ci rub jëmmi sañ Tuubaa ji barab bee mu nekk muy place place bi nga xam ne fa la def stock ak huile bi amoon nañu barab mba wala maasi wuñ ci woon dañoo wax ne ko def suñu barabu bopp investir nañ fa plus de 13 millions kii fee fa nekk ñoo ko fa def machine ordinaire yi ñu fa nekk employé ñoo leen di fay investissement bañ fa def ci wàllu euh, ciment minimum 2 millions et 3 millions ma nga fa parce que entrepreneur bi mi ngi fi mbooleem li nga xam ne moom lañ fa amoon lépp bind nañ ko ay facture ab barab nag ku fa def lu tolloog 12 millions ci xaalis ngir mu ne na ngeen ma ko darajale ngir jëmmi sëñ Tuuba mbooloo mépp maasi wuñ ci ànd waaye nag it eh, lépp ci mbooloo mi d'accord nañ ci ñu defal ko ko darajaale ko ngir jëmmi sëñ Tuuba loolu damaa jàpp ne eh, loola eh, dara mënu ko féete kaw suñ diggante te même temps actionnaire la ci écart huilière bi bokkul woon ci li ñu defoon test xotti gerte yi xotti saako yi dem nañ bi mu yàgg mu manqué joxatuñu xottu saako te xam nañ ne ràkkal ci xottu lañ koy def ak gerte gi jëmmi gerte gi mooy qualité gerte gi bari ci ay façon yoo xam ne loolu lañ loolu lañ doon lañ ñu rapporté ñu toog ñu waxtaan en même def ko ñu dindi ko loolu lañ bëgg mooy solution rek parce que ñun amuñu beneen liggéey bu dul lii lañ waxoon président de la république mooy

chef d'entreprise ba mën naa toog 3 mois mais bu ñu demee ba ci début de campagne bi dana liggéey lañ daan liggéey moo bëriwul parce que 2 mois wala 3 mois lañ daan liggéey toog mais ki nga xam ne 3000 nga koy fay wala 4000 yi nga koy fay wala muy technicien nga di ko fay 5000 francs loola la yaakaaroon yóbbu ko këram boo ko ko xañee fi dana metti te loola lu muy lu war a mën a nekk muy lu war a mën a continuer délégation de pouvoir si ñun bi ñu demee ba nga xam ne am nañ jafe-jafe te amuñu solution suñu diggante ak moom te délégation pouvoir la boo xam ne dañu ko def entre Sonacos ak mooy liggéey soxna si moom dong compté wul pour liggéey structure bi tënk 88 membres moom lim ci am wala ñene ñaari nit wala ñett nit ñam àndal amuñu ci lu àgg 30 personnes la ca des ña ko duñ ko présenté suñu bopp naan ko ñun ñu ngi nii parce que amuñu ko dara liggéey nañu ak moom ba ñëpp ñi ngi nii am mise en zéro lañ nekk ke ci gën a ndawee xam moo ci gën a néew doole biñu demee ba am ay ci biir torture yi lii ñuy wax nii pour ñu déclarer ko dafay complété ko a fay complété ko ak diwam am na ci ñoo xam dañoo complété seen i rakkal ba fi nii am na ñoo xam des nañ ko te jafe-jafe boobu lañ bëggoon ñu solutionné ko ñu continuer liggéey damaa jàpp ne nag 12000 employés ak instructeur boo xam ne dañoo ànd nekk wala ñaari nit wala ñetti xam nga ñun li ñu mën a wax mooy instructeur bi ñu yilif ñun 89 unité lañ ci seen ci Touba 89 unité yëpp mi ngi ak ñun bu la neexee nga taxaw nga xool gaay yëpp seen signataires yi ñoo moom unité yi 12000 employés lañ ci am kenn ki nga xam ne si moom moo signé contrat boobu wala boog moom lañ jox gerte googu ci ci aw turam est-ce que xam nañ baxa xam remplir ko la déet waaye damaa jàpp ne benn unité boo xam ne mënut a liggéey 10 tonnes par jour bu la bëggee indil 120 tonnes par 120 tonnes d'huile yaakaar naa deux mois sax mën la ko ci indil loolu ku ko wax am xel li la ko tànk bëggatum xel damaa jàpp ne Sonacos bu fekkee ne Sénégal dafa maanaam président de la république sa laay wax ndax moo yilif Sonacos moo ñu yilif bu jàppee ne Sénégal nii lay doxee bëgg na am am am am njariñ maanaam maanaam ñu am solution ci filière d'arachide bi comme ni mu ko waxee ci prénance bi jàpp naa su fekkee ne loolu la bëgg faaw mu wax ak waa Rasiaat parce que Rasiaat dong moo am solution dama ne la ñun pare nañ fi ne 5000 millions 5 millions de litres d'huile nañ ko ko jox par mois. te li ma ko wax bu bu bu laajee Sonacos dana ko sévère loolu mën naa nekk parce que ñun li ñu doon jox ci gerte dama ne la 15 jours yu ci ne 7 jours lañ ci liggéey te 7 jours yooyu it liggéey bis demi demi journée la liggéey. parce que kenn liggéeyu ci guddi ñun néew ñoo ci doon mën a liggéey lu guddi. 15 jours yu ci ne 7 jours yi nga am déjà bu fekkee ne bëgg na liggéey Sénégal am 1 million wala 1 million ci gerte nga bëgg koo liggéeyloo kenn ko am 20 tonnes ne ko nag dañuy te it d'abord mooy euh, ñun përi wuñ pour topp ci ginnaaw kenn parce que instructeur bu taxawee nit du topp ci ginnaaw kenn. délégation de pouvoir bi ñu ko defoonoon dañ koo jël nangu nañ ko léegi fépp foo xam ne dafay wax waxiwu fi tur rasiyaat rasiyaat moom sëñ Baara Mbacke ak sëñ Mbacke la ñëw président